mi que président de la république waxe sank commission donc information bi ni joxe moy bindu auprès du directeur général des élections pour nous dem ci ñaari commission yi nga président de la république nous et xamna ni buy jox ay yu pour ñu léegi nag dañu bëggoon a tëj séquence su candidat yi woo Thione Niang mu jël kàddu pour deux minutes. Assalamu <coughs> alaikum, maa ngi lay gërëm ci woote bi nga woote fii tey di nuyu sénégalais yi fépp fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew wax rek la monsieur président fiñ toll fii ci histoire fii ci suñu réew kenn ku nekk suñun fii tey dafa am obligation pour sàmm liñ donnoo ci suñu waajur yi muy Sénégal gi kenn ku nekk ci ñun dafa am obligation amuñu droit président réew mi dem ci guute wala mu yàqu parce que avant ñun dafa am ñu fi nekkoon te réew mi ci ay principe ci ay valeur te bu coo aman ci dëkk bi ñun ñëpp dañ daan dellu suñu mag ñi ci dàtt gi waxtaanee problème yi indi solution yi donc démocratie bi bi ñu àdduna bi bëgg a jàngal ñun dañ ko am ba pare parce que réew mi pour ñu ko bëgg a tabax il faut ñu dellu ci suy yuq bi ñun fi fi ñu jógee suñuy valeur ndax américains yeeg français yeeg et cetera li ñuy jàngal ñoom seen valeur la ak suñu culture te ñun diisoo ak waxtaan loolu dafa bokk ci suñu culture ak suñu valeur loolu dama koy wax pour wax ne candidat yi nga xam ne oo nañ leen ñëwuñu parce que man bëri na lu bëri ci sa gouvernement président yoo xam ne d' accord ma ci wax naa ko publiquement wax naa la ko en privé lu ci bëri d' accord ma ci 12 ans yi nekk mais taxul ne bi nga jëlee auteur ne ñun ñëpp dañu war a toog waxtaan dañuy bàyyi lu ñëpp suñu suñuy liñ bëgg personnellement à côté ñoo pour. grandeur réew pour lu ñu mën a sàmmee réew mi loolu ma fi indi monsieur le président pour wax ne dañu war garantir sécurité réew parce que wax naa ko ci bi ma ñëwee seet la ne war nañ def tout que pour que population bi comprendre que dëgg la fi suñu géopolitique fin fi ñu toll nii dañu rax te parce que bëri na ñuy investir ci réew mi te yor mooy yu ñu mën a buñ ñu defee deux minutes buñ ñu nelawee ñu tar réew mi te bu xoolee ba réew mi takk kenn su du ci mucc yàlla ñu ci yàlla musal donc on a le droit pas seulement ñun ñi d'accord mais c'est la confrontation des idées moo doxal réew yi ma tukki yépp ci àdduna bi mais fi dañ dañ gëm ne léegi boo d'accord toog man bëggoo réew mi boo d'accord toog man gëmuloo réew mi boo demee toog ak président sax ñu ne ennemi réew mi nga mais loolu ban mooy ban démocratie démocratie dëgg mooy la confrontation des idées toog ak ñi nga d'accordul ci table te loolu dafa fekk baax ci suñu réew donc man damay wax suñu collègues yi nga xam te ni ñi ngi ci yeneen parti te bañ a ñëw que buñ ñëwee dañuy bàyyi ay chaises yu vide li ñu métti fii lañ ko mën a trouver solution yi fii ci table bi parce que ñun li ñu métti bëri na président wër des centaines de jeunes ñu jël leen ñu dem def volontariat ci cinq minutes lañ def ci salle bi c'est inexploité pour un pays sérieux on ne peut pas aller aux élections présidentielles un candidat présidentiel nous wax ne c'est inexploité à côté ñu am 26 caisses yo xamné lepp nañ écrit ko mais c'est démocratie donc man ak processus bi élection dañ ko war a tëgg nu mu gën a gaawee comme ni ko waxee mais processus bi dañ ko war a tëggaat dañ ko war a tëggaat parce que c'est pas démocratique et c'est pas inclusif waaw suñ bëggee nag réew moo xam ne day dox ci démocratie ak dëgg il faut que ñu demaat ci processus mu tàmbali ñëpp ñu jox leen seen chance que ñu jox opportunité à tous les sénégalais fépp fu ñu mën a nekk ñu tànn ki gën si ñun ñu jiital ko mu jiite réew mi ñun foofu lañ taxaw ñu ciy woo ñëpp beneen question bi may tëjee mooy la question de la nationalité président il faut ñu boole ko suñu waxtaan bi ñu nekk suba ak tey parce que dafa am doomu réew mi yoo xam ne kenn gënu leen a nekk Sénégal ci biir réew mi te ñu ngi nekk bitim réew di faj gàcce yi ci biir réew mi fii ñu ci bëri dañ jël nationalité feneen pour mën a dimbale seen réew parce que liggéeyuñu liggéey boo xam ne tax na ñun suñ passeport ñu respecté ko suñ doom yaa ngi dee ci àll bi tey mënuñu am passeport businessman ci biir réew mi pour am rendez-vous ci passeport yi problème la ci pour am pour am visa. donc qu'est-ce que ça veut dire suñ doom yi juddee bitim réew ñu ci bëri ñu nekk fi yépp xam nañ li nekk ci réew mi ñu ci bëri seen soxna tey bu nekkee diggante dañ ko utal passeport mu dem États-Unis wala visa pour ami fa doom pourquoi pour mën a am opportunité pour mën a dimbale seen réew comme loolu bañ ko yokkee ci biñ ko yokkee ci si suñu constitution yàggul. dañu war a xalaat nuñ koy amandé nuñ koy amandé ba nga xam ne ki nekk candidat am ñaari nationalité bu demee ba gagné non attention parce que dañu wax nañu waxtaan. waaw comme dañu wax nañu waxtaan il faut ñu ajouter point boobu c'est important parce que ëllëg a tax parce que daa am doomu sénégalais yoo xam ne kenn ëppale woon ci réew ñu ngi bitim réew bu ñëwee ëllëg mais xam nga ne am sorry I gotta say this parce que.

dañ lay bàyyi ba nga war a waaj ñu la ko laaj donc mën nañ ko amande boo gagné, bala ngay waat nga joxe sa nationalité pourquoi pas mais nga joxe sa nationalité ba pare nekk ko candidat comme le dal Karim c'est pas juste c'est pas sénégalais on est un pays ouvert on n'est pas les américains donc loolu laa bëggoon a wax fii te di waxaat encore suñ priorité mooy politiciens yi vraiment dañoo sonn ci politique du Sénégal cinq ans politique politicienne suñ doomi yi ñu ngi doo ci géej gi problème yi mi ngi ci réew mi ñu bëgg a far bien que liggéey bu bari nga def nga ko ci réew mi mais li des dafa bari nañ góorgóorlu gaaw élection yi balaa nawet bi comme ni nga ko waxee ñu def ko génn ci comme ça ñu dem sur les vrais problèmes du pays mooy mbay mi mooy sàmm gi mooy santé bi loolu moom fi indi woon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup